yu nekk juróomi million maanaam élection départementale ñaar fukki million élection locale ñaar fukki million loolee nag le pouvoir bi wax ndax ñoom nee nañu dañuy bañ daan liste yi bari ba nga xam ne mën naa saboter li nga xam ne mooy élection yi yéen a kaay gi nee na opposition bi nag li ñuy wax daal maanaam bu dee mairie bi juróomi million bu dee nag département bi maanaam juróomi million yéen a kaay gi nee na alliance bi nga xam ne jamono ji nag gars yi ñoo ngi koy togg diggante Ousmane Sonko Khalifa Sall ak PDS nee ma Karim Wade alliance boobee nag léegi tey mu taxaw waaye nag yëngal na lool jamono ji nag opposition bi journal bi nee na am na ñoo xamante ni ci opposition bi ànduñu ci alliance bi nga xam ne Karim Wade ak Ousmane Sonko ak na Khalifa Sall ñoo ko bëgg a tekk yéen a kaay gii di Vox Populi ñu xëy fekk fa Cheikh Dieng bu PDS yor lépp loo xam ne jëm na ci wàllum élection yi nee na coalition bi nga xam ne jamono ji nag ñoo ngi koy taxawal diggante Ousmane Sonko xalifa Sall ak PDS maanaam waxtaan yi avancé na bu baax a baax te coow lee fi nekk wax ju bari ji waaye bëri na ay parti ci opposition bi ñoo xam ne ñoo ngi ñuy sollicité ngir dugg ci coalition opposition bi yéen a kaay gii di wal fajri nee na en tout cas na ay song yoo xam ne jamono ji ñenn ci opposition bi ñoo ngi koy songo xalifa Sall di ko song Ousmane Sonko di ko song ki nga xam ne mooy Karim Wade ñenn ñi sax jàpp nañu ne maanaam ñii dañoo bëgg complot bëgg dëgg bu njaa maanaam opposition bi ba tey ci biir journal bi nee na en tout cas li am ba des daal mooy coalition pita gas na ñenn ñoo xam ne ñoo ngi ci opposition bi ndax dañoo jàpp ne mën naa tas opposition bi yéen a kaay nga xam ne ñoo gënoon a sérieux ci élection Karim Wade di Khalifa Sall di Ousmane Sonko ñett ñi bu ñu àndee ci élection locale yi ñu def mbir en tout cas li am ba desal mooy ñett ñi moom bu ñu àndi Macky Sall dootul nelaw ndax politique gu Sénégal jamono ji buñ koy wax Ousmane Sonko la ak Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall muy ñett ñi nga xam ne ñoom la Macky Sall gën a suuraale ci langu politique gi ñett ñi en tout cas bu ñu defee ab coalition boo xam ne taxaw na maanaam Macky Sall dina way mbay ndax nag politique gu Sénégal ñett ñii la na ñu nekk ci bi ñoo xam ne ñoo ngi xiiru amul lenn loo xam ne tekki nañ ko jëm ci wàllum politique ndax ci opposition bi ñi ci gën a bëri wax kenn munta wax fii mooy seen base politique yéen kaay gi de la Soleil xëy ci inondation yi nga xam ne moo am ci biir Ndakaaru ak ci biir réew mi ak njiitu réew mi di président Macky Sall mi nga xam ne woote woon na ab réunion d'urgence yéen kaay gi nee lu jëm ci wàllum pompage gi maanaam danañu ko yokk danañu ko renforcer Macky Sall jël na loxoom dugal na ko ci poos bi nee na lu toll ci yoo xam ne maanaam danañu nga xam ne moo gën a jàmpa yéen kaay gi Sall askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Kër ma Massar jamono ji maanaam dañoo sonn ba de détail yi askan wi yeewoo Kër ma Massar mere nañu Macky Sall la yéenay kaay gi de la Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Kër Massar bu ñu waxantee dëgg dañoo tëmb ci ndox mi jamono ji nag maanaam nag inondation yi dellu si waat na ci banlieue bu Ndakaaru yéenay kaay gi de Libération nee na désespoir total moo am ci fi nga xam ne mooy banlieue bu Ndakaaru jàmm gën a maanaam route nationale ba dañu koo baare bëri na nag ay njaboot yoo xam ne maanaam ndox mi génn nañ leen seen kër ya rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk Kër Massar yéen a kaay gi di Source A nee na Touba ba Kër Massar askan wi ñoo ngi cay jafe-jafe yu métte métte jàmm gën buuna ak Rufisque yéen a kaay gi di Vox Populi nee na en tout cas li am ba de sàll mboolem liggéey nga xam ne Macky Sall defoon na ko ci banlieue bi jamono ji taw yi daan na ko yàq yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien xëy séq waxtaan ak Rose Sala alias Miss Agbo ñu gën ko xam ci série nax fi siiw na lool ci lu jëm ci wàllum cinématographie mannequin la aussi top modèle di ci yëngu bac plus 4 la am anglais ci université de Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom Rose mu siq waxtaan wu yaatu ak waa réew mi quotidien wax na ci cinéma bi ak ni mu avancé ci réewum Sénégal wax na tamit jafe-jafe yi nga xamante ni moo ci nekk wax na ay projet ma wax na cinéma ni nga xam ne moom la changé ak dundam ak li nga xam ne moom la ko jàngale ci wàllum adduna yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy yóbbu ñu diwaanu Niger foofe nag ay nit ñu yoroon ay ngàndaay ñoo fa songu ay civil ray fa lu toll ci fanweer ak juróom-ñaar yéen kaay gi di esar xëy yóbbu ñu Angleterre Premier League nee na derby am na diggante Arsenal ak Chelsea Idrissa Gana Gueye